صدري قرآن إملا salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyooti di leen dalal jàmm ci biir seen émission ziar émission ziar nag xam ngeen nu muy tëddee dañuy doxantu ba si suñu invité fas yéene waxtaan ak moom xool li nga xamante ne mooy journée weeru koor yi nan la koy dundee. alors tey nag ki ñu dalal si suñu plateau muy monsieur Moustapha moom nag mooy président wu MIC DPN en même temps aussi moom mooy vice président wu UNACOIS Yeesal. alors loolu yëpp nag du ma ci wet benn yoon ki nga xamante ne moom laay àndal tout au long émission muy oustaz Modou Fall. alors li ñuy def nag mooy dañuy bàyyi suñu invité mu daal di nuyoo monsieur Tall ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi leen di fay euh, ya awa di leen euh, tatagal di leen euh, baalu àq ci coono bi di <laughs> baalu àq aussi ndax weeru koor yi mm. di nuyu Oustaz modu Fall mi nga àndal aussi. ak seen caméraman bi aussi. Hamza ah waaw daal di leen di leen ñaanal. Mm-hmm. di ñaanal Sénégal yëpp weeru koor jàmm. yàlla def ñu dugg ci. bisimilah rahmaani rahim boobaak léegi yéen yàlla ñu ngi ñuy dimbali ñu ngi koy joxe ni mu waree. Mm-hmm. li ci xaw a manqué rek li xaw a xaw yàq mbir mi tuuti rek mooy couvre-feu bi confinement bi. moom man ba ma juddoo léegi maa ngi ma a gis weeru koor mel nii. Mm-hmm. ah dañu ñaan yàlla rek kon yàlla yemele ko fi mu mu ci lu mu gën a gaawee yàlla wutal ñu saafara ci jàngoro jooju ba ñu dellu ca la ñu nekkoon waaye li moom métti na trop kon nag euh, maa ngi masowu Sénégal yëpp mm-hmm. ci ci ci yi nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ dund fi nekk nii ci mm-hmm. weeru koor yi mm-hmm. macha allah dinañ ci gën a yaatal ci kanam tuuti alors monsieur Tall euh, sa weeru koor d'habitude ak liggéey bi ngay def nan nga koy dundee xam nga nag weeru koor moom booy xool dafa gën a dafa neex ci liggéey xam nga booy liggéey di xaar nag da ngay ndékkee da ngay añ ak da ngay euh, euh, sieste ak loolu yëpp maanaa du la ci fekk maanaam da ngay am journée bu yomb ndax da ngay oyof. Mhm. boo yeewoo doo diis doo tayeel bu midi jotee doo añ doo bëgg nelaw donc daal weeru koor man ni ma ko gisee bu ma sañoon sax. day nekk bis bu ne. parce que daf ñu noppal ci lu bare bare bare bare te danañ wax danañ may wér it nag. bien boo xoolee booy dugg ci weeru koor li ngay am ci ay affaire ay feebar yu ndaw yooyu sooxaale. Mm-hmm. boo demee ba ci digg weeru koor yi doo bëgg sax weeru koor yu jeex. Mm-hmm. ndax wér gi ngay yëg sa bopp. Mm-hmm. wér ci sa yaram wér ci sa iman wér ci sa lépp rek. weeru koor daal moom macha allah xam naa jullit moom. lu mu sant yàlla doyul ndax weeru koor yi nga xam ni moom la ñuy jox muy sunu saafara. parce que weeru woor leen wér leen la wax. te loolu ku ko mos xaw gis ko. xaw ku ko deful nag waaye ku woor weer ak ni nga ko war a defee faaw nga am loo sant. ba tax euh, ñun daal dañu sant yàlla baax baax. Mm-hmm. ñun bi nga xam ne yàlla boole ci jullit. Mm-hmm. boole nañ ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam macha allah. ba tax na daal kon euh, daf maa yombalal sama liggéey. àddina nag. Euh, Covid Covid bi tax na. Mhm. Euh, buy nit ñi dugg ci bureau bi foo faut ñu nga jël ay matuwaay. Mhm. Mhm. Euh, raxasu sol masque. booy wax ak nit ki nga dànd ko. geste barrière waaw waaw yooyu yëpp nag xam nga xaw la xaw la neex. waaw ba tax nag ku ne yaa ngi moytu sa morom. sa njaboot sax da leen di xaw a moytu. parce que xamoo fu ñu ko mën a jële parce que gis nañ fi ba tàyyi ku doom ji wàllu bàyyam bàyyi dool mbir mi daal yéeme na. yéeme na daal dañu ñaan yàlla rek yàlla indil ñu saafara. ci mbir mi balaa macha allah euh, message bi am na solo alors monsieur Tall ba tey dañuy def ci Covid boobu noonu nga doon wax mm-hmm. alors gis nañ ni vraiment euh, fii Sénégal ku wax ceeb donc xel yëpp ci Moustapha Tall lay dem ak mm-hmm. ki nga xam ne mooy suñu papa Bocar sàmba Dièye mm-hmm. alors tey aujourd'hui yow en tant que opérateur économique gis nañ récemment am na fi ay coow yu ci séddale ceeb ak yóbbul indil donc loolu yow tey euh, sa gis-gis lan la ci ban jàngat nga ci am. Ah, jàngat bi ci am mooy mm, du ñu jox mukk nit en quelque sorte. li mu moom parce que Sénégal toujours peut-être law moom loo ne da nga koy négocier te li nga moom kenn warul la ko waroo euh, ñun def nañ ci réew mi ci wàll woowu lu kenn dul natable xale yi juddu bërki démb sax boo ko laajee dañ ko ndax du lu nëbb euh, ndax mbir la moo xam dafa sensible te it mësula am njëriñ amul bénéfice da koy def yàlla nattu la ci nit mm. ñi nekk ci port ba di wàcc ceeb bi sax bu ñu dañuy yenn di yenn saak ba ngoon jot duñ ci am lu dul 3000 francs dundu moo mel noonu mhm. suñ borom fi mu ko jaarale fu ne ku ci ne am na ku mu fa teg waaw koo xam ne mënu la ñàkk def li muy def mhm. boo xoolee fi ceeb bi jóge ba fi mu accès ci boolu sénégalais bi eh, sori na trop mhm. mais te du manqué du raté waxtu wu ne mu ngi ñëw ak lu man di xew suñu borom dana fexe ba mu ñëw kon ñun loolu ñuy def suñu mission la woon suñu devoir la woon waaw ah, buñ yàlla def mu am changement changement bi mooy lan ñu indi libéralisation bu ñu koy indi dañoo waroon a seet ñi nga xam ni yàgg nañ ci xam nañ ci xam nañ mbir mi ñu jox leen ñu wàll ñuy importer comme état dañ importer ñun ñu nekk ay quotataires bu ñu waree libéraliser nañ ko jox ñi nga xam ne ñooy anciens quotataires yi am moyens yi mën a joxe remplir conditions yi. Mm-hmm. mais defuñu ñu libéraliser ko ñu jàkka jàng nañu sànni ku jëm dugg. ku mën noonu ku mën jàkka jàng nañu ko mën a noonu loolu lañ fi def léegi nag loolu moo indi lii yëpp. conséquence yi bu ñu wax li ñuy def nii tey nañu xool lu ko waral. lu waral Mansour fay mën a jóg def li mu def te dara fekk ko ci. lu waral Aminata Tall 2002 mu jóg def 52 milliards jënd ko ceeb na mu ko jëndee ñëpp critique ko bañ jëlee ko ca poste boobu. Mhm. moom mii gis nga ko coow topp na ko. Mhm. loolu yëpp nag du ñoom mais état bi war a organiser moom mooy fautif moo waroon lu muy def lu ne mu def ko dam ko war a defee buy libéraliser mu libéraliser ko dans de très bonnes conditions jox ko ñu mu ko war a jox. parce que moom ba mu ko yoree dañ ko accompagner pendant trente cinq ans bu koy joxe daf ko war a jox ña ko mérité. comme ñun ay cotataires la ñu woon. te pour nga nekk cotataire sax da nga am dossier te cinquante tonnes nga am wala cent tonnes ñu dem bay ubbi marché bi ni léegi ay milliers de ñu ne léegi ko mën a indi baax na. léegi nag liy xew-xew la ba pare ñëpp gis nañu te ba mu tey càpp expérience bi ma am moo tax. ma ma dégg ko ma ni man dama bokk ci ay caaxaan. moo tax participer wu. doy yow ma ca damaa bind euh, nu tëdd ministre bi ni ko boo ko defee lii moo ci jur lii lay jur bu ko def mu të ca dimanche ba. xaw ma samedi ba ñu waa RFM woo ma seen 13h 12 ma wax ci wala wax ci tubaab. Mm-hmm. mu leer kon Sénégal yëpp dégg nañu. Mm-hmm. terewul lundi mu génne liste. ba mu génne liste bi gis ngeen li ci xam. am naar la ñu jox lu ci ëpp. libaane boo xam ne nee nañu ay kebab la ñu jaay wala ay sandwich. beneen parti ba benn waaye politicien bu dëkk Koungheul. du ci des nag bi ko couleur nag nga xam ne xaw na ko nuru tuuti mooy kenn ku mujj muy Ndiaye CCMN Moustapha Ndiaye dëkk Kaolack man maa ko jàngal liggéey bi. Mhm. maa ko njëkk jox camion ceeb mu jaay am bénéfice. Mhm. kon kooku sama surgal ñu jox ko moom trente mille tonnes. Ah, man mi nga xam ne maay kilifaam ak kenn ñeneen ñu mel ni man contacté wuñu non mais monsieur Tall euh, problème bi euh, fan la situé peut-être selon. fi mu situé wu mooy dañoo bëgg noonu lañ ko bëggoon a gérer rek. pour jox ko ñu ñu am ci retombées yi ñu ci war a am. <laughs> d' accord je pense que loolu leer na. d' ailleurs la suite après lu xew ci la ca topp muy diw suukar beeg diwlin beeg yooyu kuñ ko jox xam nga dégg ngeen encore ni ñu ko jox voilà donc vraiment yooyu moo war a jeex. Mhm. il faut que yooyu jeex Sénégal. Mhm. bu def bu ko bu demul bu mu jeexul réew mi du ma sa tegu ci yoon li nga mérité nañ la ko jox lu keneen mérité nañ ko jox. waaye fekk koo xam ni amul droit ci lii nga jox ko parce que yaa ko war a jox rek sa signature loolu du sotti. jeex na message bi jàll na et que xam naa ñi ko war a dégg. dinañ ko dégg bu baax a baax a baax. comme ça ñu saafara loolu. alors par rapport ak euh, ba tey euh, ci euh, coronavirus bi. Mm-hmm. donc tey boo doon jox sénégalais yi message ban lan nga leen di wax tey. dala ma leen di jox message dama bëgg ñu constater mm. li nga xam ne moo xew. Mm-hmm. man li man métti ci mbir mi. Mm-hmm. mooy. Euh, dañoo dégg mbir mi depuis décembre deux mille dix neuf. Mhm. mu déclaré Chine. Mhm. ñu ne mu ngi def ay ravages. Mhm. di Birame di ravage def ay ravages États-Unis Italie France Espagne ay milliers de morts. ñu xoole ba mu dugg ci Sénégal yi nga xam ne amuñu doole. loolu mooy sama problème nu ñu def ba loolu am man man naa mbir mën na ma bett waaye mbir mu ma gis muy bëri di ñëw mais wut bettatu la. parce que donc la la moom lay wax il faut ñu situer les responsabilités kan la. kan moo war na alerter alerter kan moo war na jël décision jëlul décision waxtu mu ko yor a jëlee ndax am na fi 2000 moo dañ ko fala fala parce que xamoon nañ ñoom ñoo responsable nangu ñoon enquête bu sori waaye ba mu demee France France ñoom dañ comprendre bateau ci biir Sénégal déplacé d'un point à un autre daanu ci géej gi amul benn assistance ba suux ba 2000 mot non y a problème c'est pas en pleine mort fii la. donc su ma la déggee bu baax da nga bëgg ne gouverner c'est prévoir. et et, et sanctionner gouverner. Okay. c'est constater c'est d'abord <laughs> prévoir. si mais s'il y a problème mu sanctionner. mooy tax loolu du amati. d'accord su fekkee ne dañuy bàyyi rek muy dem leneen dana amaat. Mhm. est-ce que dañu war a continuer fii di si subir les conséquences. Mhm. sans que mu am benn problème. Mhm. ñun dañu nekk ci république dajaloo suñu bopp dénk ko nit kooku ñëw ni mën nañoo yor réew mi mën na ko yor ko ko dénk dénk ko mais lu ci am moom la ñuy laaj. pourquoi liy am man sama société. su ma ko bokkee ay ay nit ñuy ay actionnaire bu ma daanee société bi dañ may yóbbu ci yoon pour quoi doo def ba mu daanu mooy daan expliqué bu problème amee ci chauffeur sax buy dawal oto bu laalee ni dañ koy téye bu defee accident dañuy xool ay responsabilité pourquoi nag boo yoree réew bu problème amee ñu falaa falaa marché ni ni ndew dogal yàlla dogal ah, yàlla am na nañ topp tànk ñëwaat beneen émission ñu daal di koy gën a yaatal <laughs> jeex na alors message bi kon lan lay nekk avant que ñuy dem seeti oustaz message bi mooy euh, man li may laaj question wala message. non ci Covid 19 bi rek Covid li may wax rek mooy. message bi bi may terminer mooy moo ñaan. Mhm. autorité yi que ñu dimbale ñu yoo la mal euh, condition yi yoo la mal mesure barrières yi ñëpp danañ ko def. Mhm. waaye couvre-feu bi nañu ci dimbali. nañu dimbali ci ubbi jàkka yi ñu jël ay mesures de distanciation sociale. mën mhm. nga koy tudd. bon mën na nekk jàkka yi yaa comme jàkka yi bari nañu waxtu. am na jàkk yoo xam ne bu lu weer koor ñaar ñi sax duñ fa julli mm. kon li fi ne ci jàkk vraiment mm. ñuy julli mënuñ koo fees mm. nañ ñu dimbali ubbi jàkka yi nit ñi julli jaamu yàlla ñaan yàlla sa sa feebar bi jóge bu buñ ci jógee ñu bàyyi aussi couvre-feu bi couvre-feu bi mën nañu tere ñu ñi voyager déplacer d'un point là mais couvre-feu pourquoi

ravagé wul comme ni virus bay ravagé d' accord d' monsieur Tall message bi bii tamit euh, je pense que jàll na bu baax. alors tey nag balaa ñuy jeexal euh, Oustaz Modou Fall mi ngi nii toog donc tey euh, monsieur Tall lan nga buggoon ban tam nga bëggoon ñu aborder waxtaan ci ak Oustaz ñi nga xamante ne ça tourne autour de l' islam. Hmm. waaw man li ma ko buggoon a laaj mooy li nga xam ni. Hmm. mooy serment. serment serment xam nga booy dugg ci l'islam sax. da ngay prêter serment. da nga wax baat seede. Mm. dugg ci lislaam noo koy defee sa kàddu ñu ne nangul la ko parce que wax nga gëm nañ la parce que jullit du fen mm. jullit mën na def lu ne ba mu des fen boo xasee wax gë war nañ laa gëm ci wax ji mm. léegi nag ngay jullit ba pare jàng tubaab ñëw ñu ne la yaa ngi ci république ab euh, maanaam bu ñu lay jox poste bu mu mënti doon boo xam ne dañ lay jox pouvoir pouvoir nguur gi muy policier muy gendarme muy douanier muy juge muy ma muy notaire. voilà dafa war a taxaw prêter mhm. serment. boobu nag laa bëgg ñu wax ma ndax dafa da koy def noonu pour la forme wala serment la boo xam ni yàlla moo ko njëkk a digle ak boo ko defee te respecté wu la nga ci war a def lan moo la ciy xaar fii ci kaw suuf nga nekk mhm. ak lan moo lay xaar ëllëg. macha allah ayca Oustaz. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu képp koo xam ne jamono bi yaa ngi jàkkaarloo ak télévision Futurs Médias ak soxna yaa awa amati mbégte ci émission bu am solo bi nga xam ne moom mooy ziar tey nag ñu seet si président Moustapha Tall tabaarakallaahu di ko ñaanal yàlla bu baax yal na yàlla yokk ko dëgëral. yàlla barkeel ko ci daraje Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu mel ni président dafa taamu tem bu am solo. muy lan la yàlla wax ci waat. xam nga waat boo demee ci téere yi dañuy wax ni képp kuy waat ci ñett rek la mën a waat maanaam xarfu baa xar fu waaw. wala xarfu taa da nga naan billaahi mbaa nga ni wallaahi mbaa nga ni tallaahi boo seetee ci sunu mag ñi am na ci mag moo xam ne ñu koy wax Seydil Hadj malik moom bi muy waat xarfu taa la jël daf ni tallaahi maa xiftu taxniisan ala xasami charwaahuma dammahul asdaafu min tuwami nga gis ne kon ñett yi bu ci jullit xasee waat boo xasee yëkkati sa loxo waat ne billaahi lépp loo xam ne réew mi bëgg na ko danaa ko doxal parce que président day waat bari na fonction yoo xam ni balaa ñu la koo jox dangay yëkkati sa loxo waat mm. lépp loo xam ne nag jullit waat na ko ci kaw suuf mm. war na koo respecté mm. waaye koo xam ni waat nga ba pare te li nga waat defoo ci dara yàlla nee na bu ëllëgee da nga dajeeg man te boo dajeeg man danaa la àtte ba nga jàpp ni yow képp laa bindoon ci jaam ñi ndax yàkkamtiwu ma leen wa kulluhum aatihi yawma alqiyaamati fardan kon lislaam li mu wax muy képp koo xam ni dem nga bay waat la ngay waat na nga ko respecté hmm. jullit dafay wax dëgg hmm. jullit dafay am yéene bu rafet hmm. waaye jullit dafay xam ni itam bu waatee te deful la mu wax ëllëg dana dajeeg yàlla mag ñi dañ koo fonkoon ba lépp lu nuy wax dañ koy segg seggaat ko kon yow jullit bi bàyyil xel ci waat loo mën a waate nag lu dul ñett yi ma la wax jàppewuñ ko waat waat daal ci ñett yii lay tegu pour ñu mën ko considérer waat waaye daal nanu bàyyi xel ni bari na lu ñuy waat te duñu ko def am na koo xam ne bi muy wax ci xolam moom xam na ni lii muy wax du ko def kon nag yéene yi nanu ko rafetalaat bàyyi ko xel ñaan yàlla mu may ñu dégg gu ànd ak topp ba subaak jàmm insha allahu taala ak beneen invité yaa awa bismillah jërëjëf oustaz euh, leeral yi am na solo alors fii nag la ñuy jaar di leen tàggu di leen jox rendez-vous demain incha allah